ñëw jël combat bi teg ci bakkanam. Maguette Seck jaaykatu jën la tey jii siiw loolu la def ndax njuumte lu mu def ndax ni mu waxee turu saajo Mané waaye mën nañu ni du njuumte ndax ñetti yoon bi ñuy amal interview bi turu Sané Madio lay wax. damaa bëgg sama réew ak la Maguette ñetti yoon ni ngi ci juumaat de. vidéo bi fës soxna si am fanweer ak juróom-benn yëf mujjee doon naqar ci moom borom. këram yóbbul ko ay waajuram. parce que yonante bi démb li tam papa ñàkk mat na quarante mille di man. te ñàkk ko sama papa moo ko ñàkk. lu tax sa jëkkër jàppalew la ci bi nga jóg wala daf la mere ba tey. damaa mere ba tey. ñi di ko woo ñenn ñi di ko saaga. ñi may vocal danoo bari. ñi may wax wax du ma neexu danoo bari. te lekkuma ci juróomi gërëm. sama tension yéeg. njabootam yaakaar ni yor na alal ju bari. sama papa bi ma njëkkee dem dana ma ana xaalis bi may dee. ma ne ko xaalis man bi ma taajumaan dama fay xalaat xaalis. mu daan na ma télé yeeg vidéo yeeg yëpp ku nekk ñu lay may eight cent cinquante mille deux cent mille ma ne ko papa man damaa feebar ba lekkuma naanuma quatre jours Maguette doon benn bu jigéen ci njaboot goo xamante ni ñetti doom lañu waa juróom bu jigéen am AVC tey muy rëcc loolu interview bi nga xamante ni def na ko du ko jege sax ndax affaire bi dafa métti de métti na trop tey nag bu sañoon gisee ak Sadio Mané wala Sané Madio Sané Madio kon ñu koy ñaan mu gisee kon kooku di saajo Mané moom Maguette Seck nga xamante ne jamono